lii lañ leen indiloon moo kii tey giseen émission ëttu xam-xam ñu doxante woon ba fii ci diwaanu yaraax ki ñu toogal doon waxtaan ak moom di seetkatu seetkat yi mag ku duppee par la force mu neex mu naqari képp ku ci am la ci sikki sàkk numéro bi moo affiché wu noonu ci baa écran bi boo jokkoo ak moom da lay wax luy tàkk te du fay wax la sa démb sa tey ak fan nga jëm ëllëg di leen jox diggal yi ay bisi yu ñëw ci beneen vidéo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV il le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Vous avez gan nga ci kër gi nag le bouton abonnement bi teg bul fàttee activé cloche de notification bi ne ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage. est-ce que moom lii Nicolas Lidou du parce que yaa fatiko fàttaliku Balla Gaye Modou Lo seen bu njëkk ba mbuur ca quai de ba amul won ndax lu melni c'est c'est têtêtêt non li ne gala yalla yalla fal ko cat ki borom bare la quoi masha Allah mais Ama balde modlo est-ce que est-ce que tamit dañ ko teug arène nationale combat bi est-ce que tëgg ko arène nationale xaj nañ fa mbaru combat de bu ñëpp soxla mom combat bu ñëpp soxla wa combat mom la mo ko yàq amara mom ay supporter am moom si bunt bi lañ ko té lañ ko ké wax xamna ni mbolo mi yob mom buñ ko mbolo mi taxaw si buntu bi buñ ko topone non. est ce xam nga ben affaire ci lamb Modou Lo Ama balé ya nga ni combat bi ken régulariser wu ko CNG combat ba légui dafa am dafa am lu ci loose quoi combat man gis mo fuñ ko signé combat bi combat bi amul date signé wuñ ko amul dara pourquoi ñu man CNG di seetaan tamit. lu toon ñi di am imaginal tey bu ci Modou Lo amoon blessure wala Ama Baldé responsabilité boobu kon kan moo koy gàddu ah est-ce que mbër yi tamit est-ce que renouvelé nañ seen seen seen licence yi tamit man am na lu ciy luus ci sama xel de. non si waree ñoom ñoo sawar a dem rek ak am jot di dem mais kenn woowu leen woon huit kilo la woon huit kilo lañ ko defoon quoi tamit moo nañoo bàyyi rek mbër yi jaakaarloo après ñu joxaale leen seen date. xam nga mbër yi mën a préparé mais fi mu dool yi benn mbër gu mënagul a def dara ndax am ñu dat te mbër fii ak amul dat ah leen lu mu def man day yàq xaalisam waaw gars yi ñoom doy na waar quoi xam naa ne dañuy mujj ku nekk toog sa kër ñu kii leen waaw maanaam ñu leen di jël direct ñuy ñuy ñuy kii ku nekk benn ku nekk caméra yi tiim tiim la sa kër ñu di ko wane comme ni ñu ko defee woon ci Balla Gaye Eumeu Sène xam naa loolu nag mooy gën mais ñaari kaay moom c'est que Sénégal moo namu làmb rawatina ak làmb mel ni Modou Lo kii ama moom gars yi dañ koo lool. non léegi day yomb day yomb face à face la ñu wax kay ku nekk toog këram moom day yomb trop foog ñoom ñaari ñu jàkkaarloo di foog ñoom ñaari jàkkaarloo même ñaar pour pour ñaari kaay moom xam nga foog gars yi bloqué supporters yi quoi foog gars yi bloqué supporters yi wala supporters yi bu ñu nar a ñëw xam nga dañuy limité wu quoi dañuy limité. no jëyee si combat am na date am na date parce que euh, li Nicolas soo gisee mu doon def face à face bi véhicule la woon pour assurer Sénégalais yi xam ne leen combat bi dinañ ko bëree ci saison bii donc parce que rumeur yi bëri woon ak cooy ak yooyu noonu mais su rek pour mu dajale ñaari mbëri ñu toog jàkkaarloog askan bi ñu xam ni combat bi dinañ ko dinañ ko bëree. ci ci saison bi quoi xam naa bu jàlloon sax bala moom pare moom dina def déclaration boobu mu gën a leer mais comme mm, am nañ fi benn ful boo xamante ni ñëw na fa am en direct sama benn ko doon def doon seetaanee mais mujj gi ay gendarme ñoo fa mujj ñëw sax pour dóor ay lacrymogène pour tas ful bi donc pour pour mboole mën a mën a a moo tax mais am na date. en tout cas date moo jàpp nañ ko le 25 juillet la xam naa dañ ko régulariser wu pour l'instant parce que première conférence bu Modou Lo mooy ko kii première conférence de presse bi mooy bu mu njëkk def noonu après Ama nar def gars yi fomm kii boobu noonu yaa ci la ñuy wax noonu combat bi pour c'est pour le 25 juillet. non bu dee comme ni ko jee waxee maanaam CNG kéewaguñ ko kéewaguñ ko euh, maanaam pour ñu def dara du yomb mais fekk tey jëluñu kayit si signé ko CNG ba CNG nangu xam nga nangu combat bi accepté combat bi comme ni ko jee jee waxee nii nii ñoom jàkkaarloo bi mbooloo mi lu mu bëri bëri yaakaar naa du si wàññi dara dinañ mun na ñëwut seen i parce que loolu néeg ni ko laa am na ko waaw mu matukaay indi sécurité bu doy waaw. non léegi jéeg fu muy waxee comprendre naa loolu quoi comprendre nañu mais gis nga lii nii lii doonul maanaam face à face comme yeneen face à face yi quoi lii présentation rek la présentation la mais bon xam naa ni comme jéeg lu mu ko waxee rek supporter yi ñoo xër rek mais bon luñ ko fomé tamit baxna quoi xéne mo gën tamit parce que ñaari bunti xatna de ñaari bunti xatna tarap tarap sa non dey ki bëgg sa dé li di won face à face nekul face à face yo su ngeen ci tane affaire sax li di ko lay mu ngi koy wax du face à face manam ñaari mbir dañu ne invité won ci télé bi pour ñu ñëw toog xam nga am ay waxtaan yu wax ñu ñu confirmer sénégal yi kan lamb ji ñaar dinañ ko bëri ci saison bi mais li ni ko lay sax bu wax bu affaire bi émission bi li ni ko lay mu ngi koy wax leen mais du woon ay face à face dañu woon ñaari mbir la invité ci biir mais bu doon face à ko def télé face à face Modou Lo koy yóbbu ay stade wala ay place yaatu yoo xamante ni dina am ay mbooloo wala boo ku nekk toog sa kër mais borom télé bi sax moom moo doon nangu loolu ay ñaari mbër ñëw di def télé bi face à face ba pare yi maam mbooloom tulloon di fa di mais mën nañoo yàq sa matériel te du mujj fenn cest à loolu woon quoi Fajur gis na de parce que ñaari mom wadegi la bu len topote mo wax deug yalla c'est trop boy ah men mel sa combat bi sa yoon kon nak buñ dem demee ba combat bi lu mi mel anak ah, nag li bettuma quoi franchement li bettuma wax deug yalla li bettuma mais tamit tax mu nga gendarme tamit des fois ñom tamit dañu dé planer quoi dañu ah? bay lolu ay mbolo fu mu nek dor fofu ay lacrymogène xam nga lolu moy indi yeneen yi parce que face à face moom bu fekkente ne tamit aussi day am tale ñoom dañ koy teel a déclaré ñu ni ñaari mbëri kese kese kese kese lañ soxla soxla wuñu benn supporter parce que tamit yaakaar naa borom télé bi du nangu ay nit nga moo xam ci biir saal lañ ko dafay ñëw am ay fulu mbooloo dafa ñëw di taxaw ci bunt bi wala di dugg ci biir xam nga di perturbé mën nañ la yàqal sax te matériel bu subaa du mujj fenn ci loo xamante ni amul sécurité donc loolu la mais cest à nag xam nga mbooloo mu toll nii ku toll ni Ama Baldé Modou Lo xam nga nekk na mbooloo moo xamante ni tamit ku leen di woo tamit aussi te de defoo sécurité bu mat moom donc yaa yaa xam la fay xew parce que ay mbooloo ay mbër lañ yoo xamante ni fu ñu dem seen mbooloo dañ leen topp c'est-à-dire moom foofu rek dafa xaw a dafa xaw a defee tuuti naa li ngeen doon wax de mais loolu waxul date de raay ba da doon gam-gam la rek ni waroon na mën naa nekk la vingt cinq mën naa nekk ba nangam sangam waaw mais mais mais nekkul ni dafa wax fixe le vingt cinq juillet la non combat bi Diouf est-ce que régulariser xaw ma nan lañ koy wax xaw ma régulariser nañ ko sensé xam nga kenn régulariser wu ko te combat bu ñu régulariser wul naka la mën a amee date ñoom ñoo doon à peu mën nañ ko def le vingt cinq juillet xam nga comme yooyu noonu mais combat bi ah ah baax na xanaa bu gars yi wàcc see daal ma ci indil ay leeral man de lëndëm na sama bopp moom dat bi. waaw Modou Diouf loolu la moom c'est que Ama Baldé Modou Lô la moo taxoon ñu bari bëgg ko xamoon nañ ne du yomb si benn côté du yomb si face à face yi du yomb si jouru kii bi du yomb si jouru combat bi waaw ndax ñaari mbëru mbooloo la ñaari mbaru ginnaaw la waaw ñaari mbëru gox la tamit wax dëgg yàlla waaw seen combat moom yàlla na ko yàlla àggal ak jàmm rek yàlla may Ama Baldé ndam non Dieye en tout cas combat bi moom dina am moom wax dëgg yàlla moom Modou Lo Ama Baldé moom fin fin saison moom dañuy sëgg moom wax dëgg yàlla parce ku nekk jot nag sa nag sa ku nekk jot nga sa avance boo kii def conférence de presse non man daal gëm naa ni carrément combat bi moom dina am de wax dëgg yàlla moom xanaa leneen dugg ci rek. waa Dieye xam nga man du ma joxe joxe ma signification boo xamante ni peut-être loolu moo am mais surtout que rek man information bi nga xamante ni man dégg naa ko man. dégg naa ko ci jëm boppam ñoom ñu wax ko ñu ni combat bi le vingt cinq juillet la man loolu dégg naa ñu wax ko cest à nag régulariser wul nañ ko wala régulariser wul nañ ko loolu moom bon man awma ci <laughs> information bu leer wala xam nga <laughs> lu ma ci wóoru quoi mais mais en tout cas ñoom moom li nga xamante daal ñoom wax nañ ko ma dégg ko ñoom waxoon nañu combat bi ci moment boobu lañ koy def waaw wax ko nag tekkiwul ko ne ñoom combat ci moment boobu lay am parce que mbëri yàgg na fi jàpp date promoteur yàgg na fi jàpp date mu renvoyé ko <laughs> voilà loolu daal laa mën a wax moom pour l'instant mais nag am na wala amul wala xam régulation ni ko régulation ko moom ko franchement man xam-xam quoi. si non man sëgg bi du sam problème de man sam problème mooy man en tant que Modou Lo Ama Baldé mbooloo nekk ci ñoom seen combat régularisé wuñ ko fenn ci seen CNG ah waxaguñ tamit ne daan fixe la tamit xam nga ak naka la promoteur kon mën a amee sañ-sañ boobu noonu tamit di woote face à face quoi. est-ce que kooku tamit du risque laay xaw wax est-ce que du risque ak tey bu ci dara amoon kan mooy assumer ay responsabilités am ci ñooñu waa CNG mën naa taxaw ni combat bi ci man wala boobaa li ni ko laay non man daal tey na sama xel de lëndëm na sama boobu gaa. waa gis nga non yomb moom wax dëgg yàlla mënut a yomb moom boobu mu adduna bi yëpp xam nañu ko moom mënut a yomb de waaw waaw di ñaan arbitre bi génn suñu diggante rek. waaw bëggee bëggee wax nga dëgg de ah mais noonu la fay demee bëggee di Nicolas promoteur bu ndaw donc yàgg na def ay face à face na tëgg ay mbër te yaakaar naa ni Modou su ma jumulee Modou Lo Balla bu njëkk ba premier combat ba non mais ëppoon bi maa ngi fàttali ñoom ñaar bi ñuy def seen première face à face mbuur ma fekk te booba saa yi mooy loolu <laughs> xam naa moom su programme moom pour def face à pour ñoom ñaar rek entre ñoom ñaar ak supporters yi su boobaa dinañ ko organiser noo xamante ne du yàqu. mais tamit moom tamit comme ni mu ko waxee du jël engagement tamit aussi di di def benn face à face benn télé boo xamante ni xëy na yaakaar woon ne mbooloo ma dañ fa ñëw mbooloo ma ñëw nañ fa te loolu mun mun leen mun mënu continuer di jël risque boobu ban télé bi sax du ko def di jël boobu mbooloo taxaw ci buntu bi ay mbër di dugg tamit boobaa yaa problème na man a xew. non Diouf maanaam li ngeen wax yéen nangu naa ko de mais man li lëndëm sama bopp mooy combat boo xamante si régulariser wuñ ko sensé naka lañ ko mën a wutale date ba di ko defal face à face quoi man loolu man loolu man laa xamul man loolu laa mënul comprendre ko mais yéen li ngeen wax nii xam naa da ngeen ko dégg de li ngeen wax moom xam naa dégg ko te ñoom promoteur dañ koy def quoi waaw ndax Pape Abdou Fall maa ngi dégg mu ni diggante Siteu Papa Sow mën na nekk début début début out wala fin août xamal gam-gam lee mais combat moom dem na sensé yooyu moom mais dama gisagul combat mu loo kii dégguma fenn fu ñuy rek laa lii nañ ko sensé quoi.